nee naa président Macky Sall àndoon yëg moom fukki at ak ñaar man de gërëm naa ko sant naa ko rend naa ko hommage les conditions dans lesquelles les partis ont évolué depuis 2012 les de la coalition lu ci dikk rek ñeneen la ba du Macky Sall ne mu leer lu ci dikk rek ñeneen la ba du Macky dama bëgg mu leer damay seede fii les partis alliés am na lu leen daloon ci ay élection du benn yoon président Macky Sall ñeneen la te ñeneen ñooñu le bu xeex jotee kenn du leen gis waaye du Macky de du Macky Sall tey du Macky Sall suba nee naa du Macky Sall tey du Macky Sall suba ña ko def xam nañu leen loolu moo waral coono yi ñëwoon ci élection locale yi ñëw ci législative yi mais loolu dina jeex bu neexee yàlla ni ko ministre Morgan waxee le secrétariat exécutif permanent de Benno Bokk Yaakaar tous les vendredis ñu ngi dajee di waxtaan léegi suñu urgence mooy sa candidature bi moom la ñuy liggéey tous les vendredis moo tax nañu ñaan yàlla rek ñu ñaanal président Macky Sall yàlla may ko wér président Macky Sall yàlla may ko honneur président Macky Sall âge bi mu am bu demee benn moom mënatul bëggatul dafa bëgg respecté kàddoom moo tax mu wax loolu ba mu xalaatee xalaat yow mii la tànn ñun ñëpp ñu ànd ci ñun ñëpp laa la wax ñun ñëpp ñu ànd ci moo tax dañuy ñaanal président Macky Sall ñaanal la yoon bi mu nekkoon incha allah rabi bu ñu yàlla dimbalee ba yow nga jiitu yaakaar naa ne yoon ba mu nekkoon ca ngay nekk loo ci yokk nga yokk ko ci ndax àddina dafay évoluer la situation dafay évoluer nit ñi seen bopp seen xalaat dafay évoluer je suis sûr que comme les pilotes des Boeing 747 que ce soit les orages les nuages les tempêtes da nga jël volant avion bi ak lu mu mënta doon nga fexe ba avion bu génn ba léegi yegg fa mu jëm ndax man xam naa la ba ma la xamee léegi ay at la nga wan ma respect respect bu mët mët mët mët wan ma cofeel bu mët a mët a mët moo tax sama waa kër yi tey région yëpp ñëw nañ ñoom ñëpp ñu ci sa ginnaaw di la ñaanal bu campagne jotee da leen gis pré campagne da leen gis bisu élection bi na ñëpp mobiliser ñu woteel Amadou bi suñu góorgóorloo tous les partis de la coalition ak Sénégal yi bokkul ci coalition bi te yëru réew mi bugg réew mi jëm kanam ils vont voter avec nous ñu teg la ca kaw